wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisaa jisaay bi ngeen xam ni lu rëy xew na loolu moo lan mooy bés bi nga xamante ni mooy journée culturelle bi nga xamante ni dañ koy amalal maam Cheikh Issa Diène euh, fii ci Ndakaaru mu war a am nag dimanche euh, le 28 euh, janvier ta ñu amal ko nag ci ndigalal la Serigne Mountakhal Bassir waaye tamit ci kilifteefu Serigne Abdou Latif janna xalifa maam Cheikh Issa Diène ak mboolem ay rakam waaye tamit ay doomam ak hëddiye waaye taalibe ak seexi maam Seex Isaa Jeen yi eh, thème bi di jàmm bis daal eh, góor jigéen mag ndaw ñi ngi ci woo ñëpp nag ñu ngi jox kàddu gi xaritub Seex mu Muntaxa sëñ bi bég ci moom lool waaye fii ci Poroxaan nag ki ko fi yebal di président Macky sal ak taxawaay bi mu taxaw ci Poroxaan sëriñ Bass mu baax mi toog xam lépp barki démb la fi démb la fi premier ministre jógee ñëw ci Cheikh mun taxa tey ministre de l'intérieur ñëw kon kat waree na ni président Macky Sall li bi ba lépp poroxaan la moo ñëwoon fii ci xabru bi réew mi bari muy wut mu ni poroxaan jëkkante te jëkk naa yàlla may ko lim ko may mu wóolu nag jàmbaar ji doomu Tamba bii dis gor di taalibe ànd ak président Macky Sall te waru ko benn yoon moo tax mun ko intérieur dooñ nga ma waaye fii nga toog itam fi la sa mbokk ma daa toog di ko yàlla baaxal di sa rakk jox la cër di Antoine joom waaye euh, monsieur le ministre de l'intérieur li nga defal yoonu murit bi ngay ñëw xam nañ ko de sëriñ Abo Kebe nii soxna waalo jur soxna waalo sëriñ Saaliw jur nga ñëw ni ko fii ma la fekk doo buuse sa maama la ko jox sa palaasu maama lu may wax dinaa ko diisoog yow sedd nga cërub yoonu murid waaw kon ñun ñëpp ñu déglu ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw est-ce que Mbakke sëriñ bi ne nanu wax ni ñun ñëpp ñu déglu ministre de l'intérieur Sidiki Kaba nee na ñëpp déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa waaw sëriñ bi monsieur le ministre ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuho mbégte bu rëy tey ah fii ah monsieur le ministre l'intérieur ne mbégte mu rëy la am ci ñëw fii ñëw teewal président de la république Macky Sall nee na ñëw Porokhane teewal président Macky Sall président Macky Sall bi nga xam ne yebal na fi premier ministre Amadou baax ak membre yu gouvernement yi. président de la république nga xam ni barki démb rek yebal na fi premier ministre amadu baax ak membre gouvernement bi yëpp. nee na ma su ma ñëwee na ma nuyu bu baax a baax sëriñ bi. nee na ko a ah, boo demee nuyul ma bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha. di ko sant di ko gërëm. nee te di ko sant di ko gërëm. di ko wax ne. président daf ma joxoon digal balaa préparer balaa ñu egg fii na préparation bi la lépp jaar ci yoon. ne président Macky Sall daf koo joxoon digal ministre de l'intérieur ni ko bala noo yegg ca màggal ga préparation bépp na àndandoo nekk benn. wax ko gouverneur bu baax bi nekk Kaolack. ne wax ko gouverneur bu baax bii nekk Kaolack Serigne Ousmane kan ne mu def fii CRD bi. nee gouverneur ji dolli yaas yëpp ñu mën a àndandoo teg ko ci taabal ji ndax lépp sottee ndoo benn. président nee na bokk. nee président Macky Sall nee sëñ Fallou mu ngi lay wax ni président Macky sal nee ci kër gii la bokk. doom nee na moom itam doom la ci kër gi. taalibe benn ci kër gi. ministre de l'intérieur ne mu ngi nuyu taalibe yi Serigne Touba yi ak cheikh yoon wi ak ñi bi ci biir réew mi ak ñi jóge bitim réew te soxna jaara jaral leen ñu ñëw. Serigne ci mausolée bi. ne sa doom ju baax yi nag moo ko teeru Cheikh Mamadou Bachir moom sëñ Moussa Bachirou moo jàpp ci loxoom yóbbu ko ci xabru bi. ñaan bi mu def foofu sama yaram daw na. ne biñ demee ba toog nag. Cheikh Madul Basiir sa doom gi ñaan gam fa joxe ni ma jottali ko ministère yéen ne yaramam def cee daw nañ ko ci ñaan googu ñu fa jële ne ñu koy sàkk bu baax ndax soxla nañ ko rawatina nag fii senegal toll. ñu ne ministre de ne fi ñu ñëw ni poroxaan ne boo déggee poroxaan ci histoire senegal la bokk. ndax dañ koo liyee ak turu ne ndax dëkk bi dañ koo liyee ak turu Soxna Jaara Tulaahi. ndaw soosu ñëpp xam nañu lu liggéey ci lislaam. ne jigéen ju sell jooji te tedd Soxna Jaara Tulaahi ñëpp xam na li mu liggéey ci lislaam def ci diine. ne jigéen ju baax joo jile li mu def ci diine. li askan li mu def ci askan wi. ne soxna jaara sa maam ju tedd jëkkat sëñ Fallu jàngale la doon def. ne waloolu lislaam moom daal la soxna jaara tasaare ci société bi ba ñépp jëpp ne maam ministre de l'intérieur nee soxna maam jaara royukaay la nee maam jaara exemple la exemple la boo xam ne bii ñëpp war nañ caa jëlee roy soxna jaara tulaahi mu baax nee fii ci Sénégal ak Afrique ak monde entier bi yëpp war nañoo roy soxna jaara ne Serigne Bass bi mu koy fàttali ñëwoon na fi moom ak premier ministre booba Cheikh Madoul Bachir mii moo leen teeru ne di wax ni ñoo ngi ñëwit nag pour sàkku ñaan ndax ñaan kat Cheikh Mat Fadal Mbacké ministre l'intérieur ñaan dañ koo soxla ne senegal ñaan moo ko téye ñaan boobu la soxla pour mu am jàmm ndax ci jàmm la lépp xaj ci jàmm la ñu mën a def li ñu bëggee ci jàmm lañu mën a dem liggéey ci jàmm ci jàmm dong lañu mën a jàmmantee ne loolu day dañ koo soxla sëñ bi fii ci réew mi moo tax ñu di ko sàkku fii ci soxna jaara pour ñu am ko ne jongante bi ñu war a dem ne jongante bi kat dañuy ñaan fii ci poroxaan ndax nag jongante bi jaar ci yoon ñëpp am jàmm ne muy sàkku élection yooyu bu ñu ko defee dimanche bu altine ñëpp xëy dem liggéey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 woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le